bismillaahi may ndokkel suñu weer wi gën ñëw na jukkal Seexi Baay dafa war moo tax tey ma woy Tayba ku màggal ñëwam gi lislaam laahu buur bi teg la sa kaw Alfayda FM Komaaf ak groupe Medina ñoo leen di may xibaaru gàmmu Tayba 2020 sant baay ñas war na ne suñ ko santut allahu du bég dem magal ji baay avenir la gàmmu tooy ba ñépp pare nañu la tey ba daal dëkk mbon la jagéen jëfati ci tànn bu rafet bi ci Alfayda international mbokk yi dal leen ak jàmm ci xabaar yu ñeel waajal gàmmu Taïba Niassène Taïba Niassène googee nag wàccaay gi tey benn ponk rek daanaka lay doon muy waxtaane lépp lu aju ci CRD bañ doon amal ca gouvernance bu Kaolack nañ leen fa uyu ji walaay xibaaru gàmmu ba Taïba 2020 nañ leen ndokkee li bés ba ay fan rek des ngir ñu yegg ci suñu tey bañ a seen googee ba tax na nag ñu amal ci ab CRD bu mag a mag ca gouvernance bu kaw Kaolack waaye timit nag waxtaane juróomi ponk yu wuute lu mel ci teewaayu comité d'organisation ba kilifa diine yàkk ci teewaayu gouverneur Cheikh Ababakar Dieng moo ñu fa demaloon. Bim mu desee juróom-ñetti fan suñu digg xew de diine bu mag bi di gàmm Taïba Niassène si la ñu amal ndaje gu ñu di PCRD ci gouvernance su comité bi ñu dénk ñu organiser xew mu rëy mi daje ak ndaw yu buur ci bi Badara gouverneur région bu Kaolack nee na waxtaanee nañ tomb yu, yëpp ko ci mi affaire ndox mi aussi nañ commencé entretenir forage ba fa nek jëm aussi entretenir yeneen forage yi nga xam ni den nak mom mais yóbbu fu aussi ay camion citerne yóbbu fu bâche à eau ba nga xam ñu fexé ba nga xam ne ndox fa manqué buñ joggé ci lolu aussi abordé nañ walu éclairage manam walu courant bi walu courant bi aussi lu am solo la et que Sénélec aussi dina fexé ba zone bobu yépp ñu mettre ko hors de délestage mais ñu fexé aussi ba def groupe électrogène bu nga xam même bu courant coupé woon par accident aussi groupe électrogène bobu dana jël manam dal ci gàttal daal yooyu yëpp wax nañ nañ ko pour mën a am gàmm goo xam ne ne alaa daw ma lay doon ren nag gàmmu ba dafa tombeek li ñu dippee ab maladie mondiale maanaam njàngoroy àdduna bi moo di coronavirus te mu jógee ca bitim réew bàyyi na sit xew-xewam doomi bitim réew yu bëri di ko ñëw di fekkee si lii moo tax kilifa diina yi dëkki ci capitalu Faydu Tijaani ya ñu ne dinañ def seen kéem kàttan Cheikh Ibrahima Niass mooy président commission accueil ak hébergement ci COMAF coppite bi moom indi nañ ko dèjà xam moom li mu mën dafa am foo xam ne fa la mën-mënam yem li ci des daf koy partagé ak autorités yi ñu war a jël seen disposition disposition yi nga xam ne autorités sénégalais yi jël nañ ko li ko dalee frontière terrestre aéroport ak port loolu yëpp autorités yaa ngi koy jël ñun communauté d'organisation li ñu mën mooy dem sensibiliser nit ñi ndax xew-xewu diine bu mag bii nag war a dajale ay junne junne junne doomu aadama dañ ko war a fomm ndax jàngoro ji kilifa diine yi ne ñu ngi xool bu ko xalifa bi dana wax wala partout paralam waaye njortu gu rafet ci ak amalam Cheikh Ibrahima Niass. waaye événement religieux yii nii am na njort lu rafet ne ñi nga xam ne ñoo tax ñuy def événement yi yii daana fa xew mbax daana xew ci réew bu ñu jëlee li nga xam ne moom la dispositif légal jël du tere ñi nga xam ne ñoom ñoo gën a jubook seen borom ñu ngi ñaan yàlla ñu ngi ñaan yàlla pour mbas moomu yàlla emale ko fi kon seriñ bi itam kii wax ci turam euh, bu fekkee ne wax jot na te wax jot na fi nekk nii dina wax ak nit ñi wax leen itam ni ñu war a comporter woo ci événement yu demee gàmmu Tayba gu atum ren ñi jàpp ko bisub talaata fukki fan ci weeru mars war a tombe fukki fan ak juróom ci weeru rajab cérémonie officielle bi nag war a am bu 17 heures jotee maanaam buñ jullee tàkkusaan ba noppi ci esplanade bu Tayba ba Cheikh Ababacar Dieng gornoor bu Kaolack naka ma ngay dalal xelu askan wi eh, ci jàngoro ji di coronavirus matukaay yéen ca jël ñoom waaye tamit nag nañ ko war a fàggandikoo Alioune Badara Mbengue gornooru Kaolack ci micro Cheikh Ababacar Dieng waaw dañuy wax ne ni ñu a yàlla bu Gamogi, gi dafa tombé lu nekk ci région bi ñetti xew-xew yu am solo ci ben wèr ci ben région et que ñaari xew-xew yi amé ci ben département muy ñoro moy magolo Porokhane le 5 mars Gamote Taïba Niassène le 10 mars Benen événement bi moy le 28 mars mu nek ziara Léona Niassène loolu nak su amé ci période bi nga xamné ni ñi ngi wax ay feebar yu am ci adina bi yépp te mu law ci adina bi je crois que fay laaj fagaru motax ba sank bi ñu ubbi euh, ñu wax ci lu mel non légui bu loolu wesso nak gàmmu gi dañ koy préparer comme ni ñu doon préparé yeneen édition yi dinañ fexe ba kaaraange doy dispositif bi nga xam ne def nañ ko poroxaan dispositif boobu bu fa jógee directement des piquets sur Taïba Niassène donc ñu boucler axe yi yoon yi biir Taïba Niassène kër xalif général bi yëpp ñu boucler ko vraiment pour kaaraange gi nit ñi mën a dem mën a ñëw ci jàmm ak salaam su loolu weesoo aussi abordé nañ wàllu wér-gu-yaram wàllu wér-gu-yaram am na campagne sensibilisation bu ñuy def contre les maladies plus particulièrement le coronavirus dispositifs yuñ ñu jël maanaam ay poste médicaux avancés doté le comité d'organisation donc de médicaments indi ay ambulances set ak setal ñoo and ba tax na ba je crois que danañu nettoyer Taïba Niassène je crois que à partir du suba gannaaw suba dañ ko commencé nettoyer UCG dañ ci bok dañu ñom ay moyens lourd man mi li ma fi am ci petit matériel aussi danaa ko mettre à contribution pour ñu setal dëkk bi parce que bu set amee rek le reste dafay fay gëna neex a bu set am rek daanaka nak la dess day deexal lijjanti di ay cadre yu gornoor Alioune Badara Mbengue commission bañu denk nak walum dalal ganyak la ci aju mom nak ma ngay lu taxawayu kilifa yi and ak ne tamit nak nenañu dal bu kenn tit bu kenn ragal ndax nak bu may ko amé kilifa punyan ñaan dañu mëna amal ci jàmm ak salam xew xew diine yoyé nga xamné nak dal dinañu koy deggmal Cheikh Ibrahima Niass moy njital commission bañu denk walum akay ñu tewlu kaddu yee mu jébbal Cheikh Ababacar Dieng tay baña sen extension la ci gamu Medina bay daanaka ben xew-xew la motax ngeen gis presque wa Komaf di di aussi nuyu maire Taïba Niassène seen ci li nga xam ne moom itam jël na ko ci ay disposition selon li mën di sant préfet di sant sous préfet ñoom ñëpp ci nekk li nga war a def def nga ko gouverneur conduire na CRD bi engagement yi nga xam ne moom la chef service yi jël yëpp jël na ko en compte ñaax na leen ci biir réunion bi ñi nga xam ne sax nekkuñ fi jël na téléphone am leen en haut-parleur wax ak ñoom ñoom itam ñu jël seen engagement loolu nag ñu koy rafetlu euh, a dund tey nga xam ne comme ni nga ko waxee premier cas confirmé gis nañ ko tey loolu itam la ñuy def mooy ñaan yàlla yàlla musal ñu ci ci ñetti événement yi mu tudd nii <coughs> waaye du tere ba tey ñoom ñu jël disposition yi ñu war a jël ci wàllu sensibilisation ci wàllu nit ñi loolu yëpp ñu bàyyi ko xel ndax gàmmu tey moom ku ne xam na ne dafa nekk gàmmu international donc dafa am ñu bëri ñoo xam ne ñu ngi jógee ci réew yu bëri di fi ñëw surtout Nigéria Niger Mali Burkina ñoo ñëpp dañuy ñëw ak Mauritanie kon muy événement boo xam ne li muy dajale dafa bëri moo disposition yi ñu ci war jël yépp ñu war koo jël ba nga xam ne danañ ko am ci réussite bu mat sëkk ba mu am réussite gu mat sëkk dañu des ba tey nag ca googule CRD ndax yi tamit nag mbiram yoonu Taïba dingi raay juuxoon na ca waxtaan wa gën caa fës tawat gañu ca def ak seenu ko njàngat ñoom kilifa yi Mouhamadou Labib Niass di maire bu Taïba Niassène jotal na ci kaddu mi ngi ci micro Cheikh xam nga par rapport à la route dingi si on fait un petit recul dañ ko reprendre dañ ko reprendre en 2016, 315 millions de reprises. Maintenant, on a posé le problème de en 2016-2017 le gré de la journée pour l'instant, pour cette année n'a pas de un mètre de chaque bord année suivante ñu doog koo ñuulal Donc, nga boo gisee koy posé xaaruñu gamme mi parce que vous faites des daaw dafa wax ne ci plan triennal 2018 2019 2020 Elle a inscrire inspiré, ñu ne 2018 2019 ah, on est en cours donc on se projette sur 2020 xam nga pour ñun véritable

firwu pour que mën ko mën ko suivre maintenant pour le reste boo ñëwee rek ñu fexe loo ñu a def rek bon parce luñ ci mën a def rek ñu def ko gaaw gaaw di ay kàddoom moom jaraaf bu tey ba ñeseen ca ba muy daaneel ay kàddoom rek kii di Omar Diouf nekk ki fi toogal Ageroute ci zone centre bi daal dinay indi ay leeral ci li tàggatee mbel liggéey ba boobaak léegi ñu teewlu ko moom itamit ci micro Cheikh Ababacar

may ñëw seet tabi ñaar seet mooy seet bu ma gën a ragal seet yi ma am Kaolack parce que moom rek moo ma ci posé problème man man gis nga ñoom dañ koy laaj chaque fois gàmmu gi mais man man plané chaque fois su ma amee occasion moom laa njëkk a souligné di nga raay tabi ñaar seet dañ koy élargi man c'est le seul souci boo xam moom laa defoon à chaque fois defal à chaque fois fu ma nekk parce que à chaque fois su ma ñëwee xam naa su ma ñëwee fii nañ ma laaj ma xam lan laay wax moo tax su ma la ñëw terte gàmmu tabi ñaar seet damay am problème moom mooy dossier su ma gën defal dossier yëpp yëpp dossier su tabi ñaar seet laaj laaj defal mais nag dafa dafa sottee peut-être dama xale bi ne ñoom aussi ñoo ngi ciy wax léegi pour yeneen travaux yi bëgg ngeen boole ma ak kenn koo xam ne maa ngi mën a liggéey pour identifier exactement li comité ko man ko ñu mën mën temps sa travail suuf jaajëfal ko moom ma taataan yooyu le kaddu yëpp nag tukkee ko woon ci CRD ba ñu doon amal ni niki démb ca gouvernance bu Kaolack tey bañe seen góogee nag nga xam ne moom la ñu dëgmal bés la goo xamante ne nii ma ngay gaal gane si gàddina Mawlana Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima Niass Baye ba tax na tamit mu nekk jamono yoo xam ne rek war nañu ca fàttaliku njàngaleem moom Baye jéem koy roy ci mbaax waaye tamit rek mu delloo ñu ci ngëm gu ñu war a am ci sunu borom Cheikh Mahi Cheikh Seydi Alioune Cissé di porte parole ab Medina bàyyi moñu ñu yoy yooyu de kaddu moom itamit mi ngi ci micro cheikh ababakar dieng juddu cheikh ibrahim radhiyallahu amna dayo bo xam ne diine ci bopam moko soxla ndax lañuy def danañ dajé jang alquran danañ dajé leele ñam danañ dajé tuddu yalla danañ dajé jangat mom juddoom jangat siram bi nga xam kenn mënu ko jang jang bu wër numay yaangi yaa at ci japp ci sunnatu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mu melni kon bes la bo xam dañ koy def pour besalat joko, ak besalat xam xam ni nga xam ne ni moom Cheikh Ibrahima moom mooy yoonam nga xam ne ku bëgg réer rek boo delluwaatee ci jàngaleem delluwaatee ci dundam da nga teguwaat ci yoon kon bés la boo xam ne niñ ko war a feetoo dëgg-dëgg mooy dëgg la nit ñi fuñ dajee soxla lekk soxla naan waaye niñ ko war a feetoo dëgg-dëgg mooy mu wér ñu ne danañ ci dugg génn ci fekk ñu ngi delluwaat ci valeur yi nga xam ne ni moom la indi woon delluwaat ci njàngaleem delluwaat ci jàppam ci alquran delluwaat sallallahu alayhi wa sallam delluwaat ci fiir ci xaqiqa delluwaat ci nite delluwaat ci bëgg nit delluwaat sax ci wàccee kuy dund ku nekk ci barabam moo tax barab la boo xam ne waxkat yi wax nañ ci lu bëri ba cheikhaani bindoon na benn xasida ci Tayba Ñaseen dafa wax ne mawlidal barzaxi lazi jëlla ma abdayta min xam-xamin wa min teggiini dugal ci baati olof yooyu mu ne fi nga xam ne barzax boobu fu la jugee ndax ni Cheikhu Tijaani mel ci digganteem ak wàlli yi ak péeb Ablaye digganteem ak Cheikh Tidiane ak ñeneen ñi. mbokk yi sant leen gërëm leen jaajëfal leen tey wax na nag lii moo fi rusandi woon ci ay xabaar yu ñeel gàmm ko tey ba ñeseen jàngeen jëfati jox leen dig daje. Baye Niass yow la ñuy ndokkel bésab tey ba ñeseen nañ leen fa uyu ji walaay. xibaaru gàmm tey ba 2020. nañ leen ndokkeeli bés ba juddoog tey ba ñeseen gi ñëw na. ba ñeseen gi ñëw na.